xale yi ñuy teg ci booru tali yi di leen jaayloo ndox wala sax ay lekk wala tamit am na ñeen ñoo xam ne dañu utiliser seen doom yi ngir taxaw rek di yalwaan ci tali yi loolee di mettre vie wu xale yi en danger ba tax na sax ñu daal di ciy génn def ci ab taxaw seetlu askan wi ñu jot a dékk suñu micro lii moo ci seenu gis-gis. non oh non loolu moom dëgg la parce que loolu ñu ñun dañ ciy jànkoonte ak ay problème yu bari parce que ñun ci mbedd mi la ñuy jaayee loolu à chaque fois gis da gis koo xamante ne day yor ñaari ñaari ñaari xale yoo xamante ay seexam lañ peut-être mais dañuy dem ba xam ne dañuy dépassé asu yelwaat comme par exemple dañuy dem ba fer mu continuer di yelwaat ak ñoom nga gis koo xamante ne day jël doomam mu daw boo xamante ne ni di ko jaayloo ndox ko joxee téeméer sax du xam weccet bi ñaata la comprendre ko kooku da a jàngaloo mais parfois tamit da nga ci gis ñoo xamante ne xëy na yaay ji moom kese mooy dundal xale yi dem ba mujj gi mu njaboot. xëy na pour man manque de moyen la parce que ku sañoon doo jur sa doom ba pare di ko jaayloo ci tali bi genre affaire yu demee loolu nag manque de moyen mooy waral lool ku nekk bëgg nga sa doom nekk école wala mu nekk si kër ga nekk sa wet nga tourné di ko gis di xam si lu mu nekk quoi mais nag parfois aussi situation oblige la bu fekkee kër ga mooy loolu ah te xale mën na la dimbali quoi bu génnee mën na dem fori dara ñëw indi yenn dépense bëgg na liggéey te mënta jël janq il faut que tamit doom yi ki mag kooku lay jël mu koy jàppale parfois tamit loolu mooy mooy indi affaire bi manque de moyen laa koy gisee yooyu yëpp jàpp naa ne gouvernement bi bu ci jàppee comme ni mu doon ramasser talibé di leen delloo mu jël xale parents yi ànd ak seen doom di leen liggéeyloo ñoom tey mu wutal leen solution yaakaar naa moo doon gën mu ramas talibé yi rek bàyyi parents yi ak seen doom ñu teg leen ci mbedd yi man sama gis-gis daal loolu la mais dañuy bàyyi xale yi taxawaalu jànguñu alxuraan jànguñu école teewu leen ci kër gi ci mbedd bi nañ yendu soo ba ngoon c'est pas prudent quand même loolu moom dama jàpp ne dara nekk quoi ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy def exprès di utiliser seen doom di leen teg ci trottoir yi pour di yalwaan. waaw ba tey benn rek yalwaan moom kenn kenn kenn bëggu ko quoi. loolu moom dëgg la li nga xam ne moom dëgg la mooy nag instant yi moom Sénégal dëkk bee corona am corona bi moom ak crise bi am moo tax lu bëri moom da ngay comprendre rek mais li xale yi di wër ci mbedd yi moom vraiment vraiment moom c'est pas la peine dañuy wër daw jéggi tëli xale yi ndaw 4 Euh, tey nag euh, parents yi nga xamante ni ñoom ñooy def lu ne mel lan nga leen di ñaax tamit. waaw non xanaa tamit aussi dama leen di ñaanal ñi nga xamante ni fekkee dañoo ñàkk may ba tax ñu ko def yàlla may leen loo xamante ni moo gën bañ mën a yóbbu seen doom yi ci école mais tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo sës ci ñoom bañ a nga xam ne ñoom ñooy seen ñooy seen nijaayu doom wala ñoom ñooy ñooy seen bàyyi doom ñu bañ a bañ a xool ci ne yaay ji mënu dara ñu bàyyi ko doom yi rek ñoom aussi tamit ñuy jàppale bañ a xaar état comme que état tamit loxoom gaawul ñi nga xamante ni ñoom ñoo sës ci askan wi ñoom ñoo war a njëkk jàppalante ñu suñ biir noonu ko jàppee noonu daal situation oblige waaw ah, dëkk bi moo demee noonu dëkk bi neexul metti na xam nga ku nekk nooy def ba ba ba ba yóbbu kër ga rek ngay ngay gis quoi. parents yi ah xëy na ku amoon doole wala nga am as sa doom nekk mbedd yi di jaay ak yooyu. waaw man sama doom <laughs> ñoo ci école yi di jàng. xëy na peut-être manque de moyen la xanaa loolu gouvernement état bi moo ci war a taxaw xanaa parce que nag ku amoon ku amoon sa sago daal sa xale bu am 8 ans 9 ans 10 day ànd ak moroomam yi di jàng école wala mu ne ci internat yi wala mu ne ci bonne condition mais taxaw ci mbedd mi di daw ak sareet yeeg oto yeeg moto yeeg vraiment c'est def reportage romb sa rakk mu ànd ak doomam nekk ci mbedd mi mu koy jaay ba pare te yaa ngi def même reportage bi comprendre nga. ñooy jaay ay kerem ñooy wër ci mbedd yeeg autoroute beeg tëli yeeg yàlla xam doy fi a moom chaque jour xale dee fi chaque semaine ñu jaray fa xale xam nga aussi tamit dañuy wax ni bala ngaa laax jaay da laax lekk nit ñi ñoom nañu jàppale seen mbokk yi ñoom seen jëm bopp ba ñoom tamit ñu bañ a nekk ci euh, kii boobu parce que xale bi nga xam ne yaa ngi koy jaay la ndox ñu woo ci kër gi ne la oto fiir na ko lépp loo ci amoon tamit di nga ko ci def te du tax mu wér récemment moom samedi fële passé jéggi autoroute bi bi jaar na moo tax jéem a fexe xale yi dem ci école ba pare état bi jàppalewaat askan wi te xam ne fi mu toll dañoo nekk ci réew moo xamante ne nit ñi doole. ci seen kàddu ñu mën a jàpp ni réew mi moo naqari lool ba tax na parents yi rek di yebal seen doom yi ci tali bi ndaxte ku sañoon ku ne sa doom day dem ca école ba wala sax mu toog ca kër ga waaye nag li ñuy ñaan mooy ñu gën a rek jàppalante suñu biir. gestuwaat ñi nga xamante ni ñoo di néew di doole yi ba rek phénomène yu ni mel daal di fiy jógee lii moo nekkoon seen reportage du jour ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen gox. ci beneen sujet